وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله من يونتي لن جم يونتي لن فانك دي لن كجله ولا دي لن تقله واي نيب لن ياند دوغم يونتي ييب دي ني باري باري كين كو تي ويب ديريك ген لا تي دين الاسلام كين كو تي ويب ديريك ген لا تي دين الاسلام جامنا بي نك ني تولو فيم سي تولي خالي جارنا نيو خامل لين ah ñi nga xam ne ñooy feetu li ñuy feetu lan la fekkee dañoo jëm wax ko ci wàllu feet gi jàngale xamale ne bokkul ci suñuy yëf ngir ñu xam fuñ say taxawee aayit waaye tey nag dañoo bëgg a waxtaane ci ki nga xam ne moom lañu bari di feetu te ñun bokkuñu ci ñi nga xam ne dañoo war a feetu décembre boobu waaye nag dañoo war a xam kan mooy Isa ak nan la sosoo si jamono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 فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا بآية صدق الله العظيم برمي سبحانه وتعالى نيني يوم محمد تدل مريم تتهرب نكو إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا مونكا دفا نكون بو خامن دفا بير وول سوري جاب نيامبرام توك دي ليغيال يالا مريم صفنا سني وحنا بوكو تي آل عمران ولدي دوم عمران موم موكو موم موكو بيني بوكو تي فامي عمران موم موكو بيني موم مريم ki nga xam ne moom moo ko yar mooy nijaayam Zakariya mi nga xam ne juif yi ñoo ko rey te mu nekkoon ab yonante moom Maryama mi yar bi ko Zakariya yar rafet gu mu rafet nga xam ne daanaka daf ko daan téye ci ab ruq te saa bu dikkee fekk Maryama ami xéewal mu naan ko annaa laki haada ana firwi yi nga yor ak xéewal yi nga yor foo ko jëlee mu ne ko yàlla mi nga xam ne lu ko neex lay def moo ma jox xéewal yi nga xam ne ci sababu o Mariama boobu ci la Zakaria fàttali ko ne kon war na maa ñaan yàlla mi nga xam ne mooy jox Mariama lii mu may ma doom mu daal di koy ñaan mu daal koy bindal ne ko da am doom joo xam ne tur biñ koy jox moom moo ko njëkk a tudd te doom bi mooy Yaxya moom Zakaria mi ci gàttal moom moo yar kii nga xam ne moo di Mariama moo tax borom bi subhaanahu wa taala ne idin min ahliha makaana sharqiya فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا borom bi subhanahu wa taala nee na nekkoon na koo xam ne dafa amoon lu mel na foo xam ne fa la daan beru di fa wéetalee yàlla nga xam ne xijaab lay doon muy benn kiiraay moo xam ab tabax la wala aw sàkket wala dafa nekkoon loo xam ne muuraay la daan fa beru di jaamu yàlla fa taxadat min dunim xijaaba waaye borom bi subhanahu wa taala nee na mu amoon benn kéemtaan boo xam ne dama koo bëggoon a def ngir mu nekk kéemtaan boo xam ne day nekk kéemtaan ci ñu ko fekke waaye nekk kéemtaan ci ñi nga xam ne ñoo ñëw mooy sos doomu aadama boo xam ne day yéeme maanaam ndax day di ci ndey rek ci wajur wu jigéen waaye du am bàyyi bi ma xoolee ne jigéen yi bi yépp la ko jiitu ak liy ñëw te ñëwagul lépp kenn rek moo ma ci doy te mooy Maryama moo tax Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu ne fusti بظرف الحسنات سيدة للمحسنات مريم فقد الموخنات عند الذي لم يدرك موصر انتو بعد نكو يو مريم جيجن نيب يا سين سانغ نخ يونتو صلى الله عليه وسلم سيال مجم دفو فاطمة ومدك دالي كوي دي نياري دي بن بي دفكو جوي لو بن بي ريتان لو بي صلى الله عليه وسلم دمي بن كو لاجي لن مو دا ريتان لو ون لكو جوي لو باي نينا لكو ريتان لو موي yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dane ko yow kat yaay sangu jigéeni àjjana yi ba mu des Maryama kon ñu xam ne kon Maryama alayha assalaam mboolem soxna soo xam ne da ngay dugg àjjana mooy nekk sab sànq ñeent ñi nag ñoo gën ci jigéen ñi àdduna bi mooy Maryama ak Asiya mi nga xam ne moo nekkoon soxna Firawna wala jabari Firawna wala eh, ak ak Xadija mi nga xam ne moo nekkoon soxna Muhammad sallallahu alayhi ak Fatima mi nga xam ne moom lañ jigéen ñi ñooy xayru مو مريم بيغا خامي بيرو ندي جام يالا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا نينا ني يوني روح كوكو موي جبريل جبريل دا ديك دا يور ملوكان دوما ادم دي واخانتي اك مريم نيكو ناك يالا مو يوني تي يو مريم نيكو اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا ما ني تي يالا مو مسل يو بو نيكو كو خامني كورغال كورغال يالا ان كنت تقيا جبريل نقول إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا من كت نولا لو خمنا يلا مو يوني ليهب ورش مو بجان وإلي أهب لك حفص مو بجان بتاي معنا بيان لا بدي ليهب يلا تي بوب مو لا يخ بدي لأهب موي من تي بوب مي يلا يوني ما لا يخ كون فأرسلنا ليهب لك غلاما زكيا غير ما جخلا دوم بمي واخ نون مو بغا داو جبريل دالي جن روحا معنا مولم دالي كوي دفتي مريم عليها السلام لولا نك سبب مريم دالي تعمل نك جيجي ميرون بدي مخي أنغوني عليها السلام مريم دالي دمتي بن آه، مبكم بوخم نه قرار الله يالنا لا لايكو نكون داخل جيجي من خيرك أم دوم te amu jëkkër mu ne ko waaw ana kan moo bind aadama mu ne ko yàlla borom bi subhanahu wa taala moom bi dong mooy ki nga xam ne gëmul na Mariam Mariam alayha salaam ci gàttal ci noonu la demee ba nga xam ne am na doom fa attaxada li ahbalaki gulaaman zakiyan qaala tan ne yakunu li gulaamun walam yumsasni bashar waa na ana nan laay mën a xëy am doom te man aw ma jëkkër kenn laalu ma wala ma aku baxiyan te man nekkuma koo xam ne damay taxawaalu fa asharat ilayhi qaalu kayfa wala ma aku baxiya قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين قال كذلك يوننت بوغا خامني موي جبريل نكو لولي كان يومبا قال كذلك قال ربك هو علي هين لول يالا يومبا جي موم لول مو ديف كو ولنا جعله ايه للناس ورحمه منا وكان امرا مقضيا غيرنا يالا داف كو بغي ديف مو نيك دو خامني مانام لو جابدال لي موم واي داي نيك دو خامني كيم تان لي دون امرا مقضيا نكو نا موم خاصنا ام با نوبي مانو تي دارا kon maryama alayha salaam daal di ëmb fa xamalathu fantabatat makaanan xasiyan mu daal di ëmb waaye bi mu ëmbee nag tàmbali di làqatu tiis lool ku nekk xam na ne su sell sa laab soo xam ne dafa xëy xëy rek daal di tàmbalee nekk jigéen ñi birul daal di a ko ah xel na ak logique doomu aadama nangu ne man kat damaa xëy xëy te awma sëriñ loolu dana nekk loo xam ne lu dul ñu yàlla baaxee rek ñooy mën a ci kees boobu waaye dana jafee fa xamalatu fantabadat bihi makaanan xasiyan bi nga demee ba nga xam ne moom Maryama alayha salaam tàmbali naa nekk foo xam ne fa la tàmbalee wëlbatiku ngir li nga xam ne moom la ëmboon mu am doom ci jàmm fa ajaa ahal maxaadu ilaa jifi nax la mu dem ba ci taatu garab mu daal di fay toog daal di fay yeewu ba noppi rus ragal lool waaye mësta am nag idée sànq doom bi comme ni nga xamee ne noonu la xewee ci jigéenu jamonoy tey bi nga xamee ne jaax nañ leen lool waaye nag. ki nga xam ne moom la indi muy gan Aïssa foofu la njëkk a waxanteen moom qaalat yaa laytani mittu qabla hada wa kuntu nisyan mansiyan ak a neexoon li jiitu tey ma dee bañ fàtte ma ndax liñ ma nar a yàq liñ ma nar a wax kenn xamul nan laa koy déggee waaye nan fanaadaha min taxtiha allaa tahzani qad jaala rabbuki taxtaki si noonu liir bi daal di waxoon moom ne ko ba jàq sa borom subhaanahu moo la defal secret secret bi mu la jox jox nag yow jël ko rek yàlla dana la dimbale قد جعل ربك تحتك سريا نقدر وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا تواش ولا تساقط عليك رطبا جنيا جحص دان نكو قسم الغرب بو قسم الغرب دادي ويت دادي ودل اي دوم ام دادي جي لك نكو نك دمال دال سام دال سام خيل بودا كين غيسي لك ني ني نيلن تاي دما وور من دوما واخا دوما ادم مريم عليه السلام بلي بوخيك مو خامني كون لي كيرتان لا موم خلام دالنا مدادي دم شيء تم فاتت به قومها تحمله دادي يوم يلو لير بي دي عيسى نك لير بتوعي خب فاتت به قومها تحمله من ينك تعمل إذا فجيو بني دجيل مريم دكنا جنا الله كتب يعج أن علينا دوم أها لك دوينا وار يب أمن دوك قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا مريم تايكت أنيغا مير مو خامني مير مو دوي وار لكن خمو ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بخيه يو صفاك بنتون سا ياي بنتون كين ديغا نيك بوك كين بنو دا خي خي رك ام دوم لولو اب جيني لا او خاص لا ما كانت امك بخيه مريم دا وخت دا دي جيل بارام فاشارت اليه دا كوي بوينت دا دي بيمو خالي كيف نكلم من كان في المهد صبيا انا نان لا ني اب خالي بو خامني لير مو توي خيب لا عيسى اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا من كت جام يالا لا بو يالا موما جوخ تيري تيري بوبو موي موما ديف اب يوننت با نوبي نيك ديف ديف ما كو يالا لاي دور دان سما ياي مي ني نتومال كات te andiwuma ci àdduna ci yoon woo xam ne yoonu euh, saay-saay si la yàlla na yàlla def ci man jàmm bis bi nga xamee ne ci laay dund ak bis faatu Isa ba tey faatoo mi qatalu wa maa salabu walakin shubbiha lahum yàlla nee na kenn rëyu kenn daaju waaye dañoo soppi kenn ca ña nga xam ne ñoo ko daroon mu ngi moom lool nga xam ne ñoom li ñuy gis mën nañoo gis lu dul jëmmi Isa ñu jàpp ne moom lañ rey daal di rey kooka nga xam ne daf ko bëggoon a war waaye Isa moom kenn roy ko yàllaa ko yëkkati mi ngi dund ba tey kon moom Isa wasalaamu alayya yow ma wulidtu wa yow ma amutu wa yow ma ubaasu xayya borom bi subhaanahu wa taala bi mu nettalee lii fi Isa sosoo ba léegi mel na koo xam ne dafa bëgg a teggi ay tuuma ci liñ ne Isa doomu yàlla la mu ne daalika Isa bnu Maryama kookat mooy Isa bi nga xam ne mooy doomu Maryama qawlul xaqi alladi fihi yamtaru wax waaye nit la koo xam ne maa taamu ci moom def ko mu nekk kéemtaan goo xam ne day nekk si kéemtaani jamono yi moom borom bi subhaanahu wa taala yaxal ci alquraanul karim ne nit la woon koo xam ne kaana yakulu taami wa yamshi fi l aswaaq lekk da naan da daan ci yey muy ci marché yi di jënd di def lépp loo xam ne doomu aadama rek daan def kon léegi ci gàttal xubba gi xaaj bu njëkk bi liñ ci war a xam rek mooy Isa nit la waaye nit la koo xam ne sama borom subhanahu wa taala fii la ko jaarale mu am waajur bu jigéen te amul waajur bu góor aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum yaakaar naa maa gën a jàkkaaroo moom de voilà li ma jàkkaaroo moom moo tax non amul amul problème alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiya léegi ñu julli سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط المستقيم مرام سبحانه وتعالى ويك القرآن كأي بربي بري بري من جانجل كنو عيسى تي لو بينا خم خم اليوم هم لما جيسس كبير ويدوم مريم عليه السلام كنو نلون أبي يونن boo xam ne yàllaa ko yónni def ko moom ñëwam mu nekk kéemtaan waaye boole kook ay kéemtaan bokk na ci kéemtaani isa alayhi salaam kaana yukmihul ak ah, ah, ah, moom isa alayhi salaam nekkoon na koo xam ne da daan raay gumba yi ñuy gis daan raay yi nga xam ne dañoo tële ci tànk mënuñoo dox ñu wér nekkoon koo xam ne daf daan fekk ku faatu mu woo ko ci bàmmeelam mu jóg wuyu ko daal di dekk def na ko ci ay xew-xew yu baree bari moom isa alayhi salaam xëy na yii nga xam ne nag dafa nekk loo xam ne kéemtaan la gu ëpp ci nit ñi jombul am na ñoo xam ne danañ ko yéemu yéemu ko ba déplacé ko place doomu aadama li borom bi subhaanahu wa di wax ne nekkoon na koo xam ne daf daan raay bëti yi ñu kumba ñuy xoolewaat daa say teg daal nekkoon na koo xam ne nit da daan ñëw mu wax ko la mu fanaane biir këram wax ko la nga xam ne moom la denc ci biir këram wax ko la xam ne moom la bàyyi ci ginnaawam moom isa alayhi salaam nekkoon na koo xam ne it ku bari woon ay challenge la ci nit yi am na bis mu wax aw xeetam ne leen woor leen lu toll ci far fan ñu daal di woor bi ñu wooree ba noppi tegal ko sart ne ko dañoo bëgg nag borom bi subhaana dañoo bëgg sa borom bi wàcceel ñu ay palaati miche wi ñu wala ay palaati xéewal muy maida ñu noos Isa alayhi salaam daal leen di waar ne leen damay ragal yàlla wàcceel leen ko ba noppi du ngeen ko sant wala lenn ci yéen wer di te kon yàlla alag leen ñu daal ne ko bëgg nañ yow wàcceel rek duñ ko weddi moom Isa alayhi salaam mu wéy ay guddi yu bari di ñaan yàlla ba yàlla nangul ko wa id qaala allahuma rabbana anzil alayna maidatan min alsama takunu lana ciidan li awalina wa axirina wa aayatan minka warzuqna wa anta xayru raziqin bis bi ko yàlla di wàccee dañoo téen ci asamaan si rek gis ay taabal yu rafet di ñëw ñu koy xool muy gën di jege si ba teew ci seen kanam mu nekk ñam yoo xam ne ñami àdduna yii la waaye nekk xet yoo xam ne xetu àdduna yii la lu dul ne rek ràññiku woon na ci jamono boobu la jigéen ñi wala góor ñi daan togg lépp palaat yooyu moo leen dàqoon waaye li ñu mënoon a jëfandikoo la Isaa dalal seen xel ne leen lekk leen bañ lekkee ba noppi lu bari ca ñoom santuñu waaye dañoo wéq palaat ya football bool ya ba mu des fukk ak ñaar ñoom la ñuy tuddee alxawaari yu ci alquran ñoom ñoo ñi nga xam ne gëm nañu Isa te mësuñu koo ay junni junni nit la doon woo waaye lu néew ñoo dëggal woote ba ginnaaw bi nag borom bi subhaanahu wa taala nee na ginnaaw bi mu fi jógee nag léegi séddalikoo ay xaaj am ñoo xam ne sax dañ koy tuumaal ne yàlla la yàlla googu ñu koy tuumaal nag borom bi subhaanahu wa wax weddi ko ci alquran ne nekkul yàlla nekkul doomi yàlla te yàlla amul soxna amul doom nee na ci suratul maida bi bisa ngi ñëw boo xam ne man yàlla danaa woo salaam ba mu dikk bu dikkee ma ne ko a anta qulta linnaasi ittaxiduuni wa ummiya ilaahayni min dunillah yow isa ndax yaa waxoon nit ñi ne man ak sama yaay na ngeen ma jàppee yàlla wala na ngeen ñu jàppee ay yàlla بوبا عيسى عليه السلام نه سبحانك إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك loolu yi nga xam ne moom lañ wax sama ginnaaw bu fekkee ne maa leen ko digaloon ba ma koy digal gis nga ko wala dégg nga ko waaye set naa ci ba set wecc ndax xam nga man li nga xam ne moom laa doon fësal ak li nga xam ne moom laa doon nëbb ba mu waxee loolu ba nopp ne ko innaka anta alaamu xuyub yàlla waxuma leen woon maa qultu lahum waxuma leen woon illa ma amartani bi lu dul li nga xam ne moom nga ma digaloon ma sant ma wax leen ko an abudullah rabbi wa rabbakum jaamu leen yàlla mi nga xam ne mooy sama borom di seen borom wa kunta alayhim shahidan loolu lépp nag yaa ngi ko seede woon fa lamma tawaffaytani kunta anta raqiba alayhim ba nga demee ba nga xam ne jëlee nga ma fi gis nga la nga xam ne moom moo xew ci seen ginnaaw daan ne ko fa in tuadibuhum fa innahum ibaduk say jaam lañ su la neexee nga mbugal leen wa in taxfir lahum fa innaka anta al azizul hakim yaay seen borom te buur bu baax nga ku tedd nga ku xere nga bu la neexee nga jéggal leen kon loolu ci gàttal mooy histoire Seydina Isa jëmmi feet gi nag ana lan la si ab jullit am ab jullit amu ci lu toog di seetaan def lam daan def dong te fonk Isa te gëm ko ci ab xolam ne ab yónnente la boo xam ne yàlla moo ko bind ngir mu nekk mucjisa boo xam ne mucjisa ilaahiya lay doon yàlla dafa bind nit ku amul ndey amul baay mooy aadama bind ku am yaay te amul baay mooy isa bind ko am baay te amul yaay muy aadam bind ko am ndey ak muy ñun ñi ñëpp yàlla nu ko neex lay defee ay mbiram kon nag ñun jullit ñi ñoo gën a yey ci Isa ci bëgg ko te topp ko lu bari nag ci yeneen diine yi dañoo jàpp ne jullit yi dañoo noonu Isa ak Maryama déedéet dañ koo bëgg ñoo ko gën a bëgg sax ñi nga xam ne dañ koy woote woo di ko topp waaye nag jullit amul benn taxawaay bu dul bii nga xamee ne noonu la koy boolee ulul azmi yépp boolee ko yónente yépp bëgg leen fonk leen gëm leen ku ci am téere nga gëm ne amoon na téere waaye ginnaaw Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nag moom mooy ki nga xam ne mooy xaatamul anbiya mooy ki nga xam ne képp ku jullit moom nga war a dégg ay njàngaleem topp ab wooteem ci lépp loo xam ne joxañ na fa baaraamam comme ni nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laa yuminu ahadukum xatta yakuna hawaahu tabaan lima jitu bihi amul kenn ci yéen koo xam ne dana mën a nekk dëgg-dëgg ab jullit lu dul ne dafa jël ay bëgg-bëggam tek ko fele te jital li nga xamne mom la ko andi lolu mo ñi def deug deug ab yu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا من يال ما يدير الطف يا من يال بدر أيدير يال ما يال بدر فجيب بدر جيب تسا بني فات يال نن يخلق ويال ن يال نفك نجيب كل نخبر سبحان الله يال بولين تين يا خم الدنيا كما قامت الصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الشعر الشعر بسم الله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 واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سميا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم بغيا قال كذلك قال ربك هو علي حين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما تأترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا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 فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا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 asalaamaaleykum.